Rewmi 24 TV. bisimilah leen ak jàmm ci xibaar. mercredi 31 janvier 2024 mu mel ne nouvelle bu naqare naqare rek daal di nay dal ci ki nga xamante ne rek moom mooy président Bassirou Diomaye Faye mi nga xamee ne jamono yi ma nga ca prison bu Cap Manuel ndax bu ñu rek le 6 doyen Omar Maham Diallo rejeté na nag la demande de liberté provisoire di Bassirou Diomaye Faye boobu nga xamee ne dugal nañ leen ko mu doon loo xamante ne rek ñu bari na koy naqaru di wax ne rek loolee du yoon ndax kat loi sax nangu lii képp koo xamee candidat la rek te nekkoon ci yoon dañu laa war a libéré nga daal di rek mën a battre sa campagne mu doon jëf joo xam ne rek ñu bari ñu ngi koy naqar ci Omar Maham Diallo nga xam ne rek moom saa su ma ngay def loo xamante ne rek daanaka du neex askan bi loolee waral sax ñu bari rek daal di wax rek Macky Sall rek lay diglu moom moo koy digal muy def kon daal bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne rek moom mooy Omar Maham Diallo mi ma ngay xam ne rek daal dinay rek bañ liberté provisoire bu Bassirou Diomaye fay bi